Xaadim Fall karimiste nekk Touba bokk ci union des karimistes du département de Mbacké nekk président mouvement Maskaw ànd ci ak ay karimistes yoo xamante ne ñu ngi ni taxaw ku ci mel ni soxna Lota Gaye nekk responsable des femmes de l'union des karimistes du département de Mbacké ak euh, Modou Dieng tasse de massification bokk ci mouvement Maskaw ak Abdou Khoudoss Mbaye ak Djili Baxdaat bokk ci mouvement M5 bokk ci mouvement Maskaw léegi nag kon dañu leen di wax ne ñun ñi nga xam ne ñoo nekk Touba doon liggéey ci loo xam ne da doon jàppale Karim Wade tey bis nag a tey rejoindre nañ kii nga xam ne moo di soxna maam Xarim Mbàkke ambassadeur di la wax ne soxna maam Xari na sa xel dal ci karimis yi te xam ne ñëw nañ ànd ak yow suñu yittee ak ñu liggéey lépp dañu ko jëmale ci lu fal président Macky Sall dès le premier tour di la wax ne ah ñun kat dañu dëkk Touba gis ni président Macky Sall def Touba muy lo xamantene defal na ko képp ko xamantene ne ngi Touba muy lu ci li ci mën lim rek muy barki démb autoroute Ila Touba bi nga xam ne inauguré na ko ñu def ci ay milliards xalaatu ko jëmele fenn fudul ci dëkk bu tedd bi di Touba ak projet yi nga xamantene président nal nako fi te gis nañ ne ñi nga xam ñoy xëccio réew mi di 5 candidats yi fi nekk benn candidat bi nga xam mo ci gëna am solo gën ci stable pour Sénégal moy président Macky Sall. distance on est là aujourd'hui euh, Alioune Diagne et Karimiste, euh, Parti démocratique sénégalais et libéral. Euh, on remercie tout le monde, tous effectivement les militants du PDS qui sont là aujourd'hui. Et là, on est en train de faire notre conférence de presse pour répondre à la main tendue du président de la République, son Excellence, euh, monsieur M. Macky Avant tout, nous allons remercier celle euh, qui a eu à faciliter tout cela. Parce que nous, nous avons des idées. Et l'idée première, c'est quoi On a effectivement constaté une situation politique au Sénégal qui est caduque. Et comme nous, on a fait tout ce qu'il fallait pour que Karim Wade participe à ces élections et Oh, du parrainage, oh, on a tout fait. Et malheureusement, Karim Wad n'est pas là. Comme Karim Wad n'est pas là, il fallait réfléchir. Parce que ces élections 2019, et tout Sénégalais qui, a, qui aura raté ces élections, alors il y aura euh, vraiment un cœur euh, gros. Parce que c'est des élections qui peuvent vitalement changer euh, euh, la, structure politique du Sénégal. Donc moi, à j'ai effectivement quitté mon mouvement au JICA, au CAS Diapo à Karim Maïsawad, avec des amis qui croient l'idée. L'idée c'est quoi Élire président Macky Sall ce 24 février 2019 va apaiser le cœur effectivement, va permettre aux Sénégalais de s'évoluer. Parce qu'on doit enterrer cette hache de guerre. Cette hache de guerre politique, je veux dire, de 1960 à nos jours, dirigée par des, euh, je dirais, des anciens. Donc, nous remercions, nous félicitons et nous encourageons Mam Kherimbake, celle qui a une vision extraordinaire. Ça ne nous surprend pas ça ne nous surprend pas. Parce qu'étant fils ou fille de Cheikh Murtada, Ibn Cheikhul Khadim, ça ne nous surprend pas. Ah, ak union des karimistes yu Touba département de Mbacké tey vraiment ku gis kanam yi xam ne tey mun nañu wax ne que euh, karimistes yi kenn ci solo tey ñëw nañu rejoindre ñu ànd ak ñun pour le président Macky Sall euh, di invité nak euh, karimistes yëpp mouvement mi am ci biir Touba ñi ci des a kus ak itam euh, waa PDS yëpp di leen wax ne tey lii Alioune Diagne wax mooy dëgg tey intérêt PDS mooy ñu jàppale président Macky Sall mu am deuxième mandat bu faloo cinq ans après ñu doog a xool ba xam Karim Wade day ñëw wala déet mais mënuñu jàppale Idrissa Seck loolu xel nanguwu ko muy am deux mandats dix ans ci kanam mënuñu jàppale Sonko muy am dix ans xale boo xam ne amagul expérience kon tey dañu invité képp koo xam ne PDS nga bokk parce que itam nag nekk président parti ça ne va pas dire yaa moom waa parti ba nit ñi dañu am ay xel di xalaat li leer mooy karimiste Touba yi moom waa OJICA ak yeneen mouvement yëpp ñu ngi nii taxaw euh, vraiment ñoom ñëpp ñëw nañ rejoindre groupe bi pour falaat président Macky Sall au premier tour ñun waa Touba nag duñu yetu kenn kenn duñu xeexee kenn Touba dëkk la ba nga xam ne mooy xolu Sénégal Sénégal yëpp ko bokk parti yëpp ko bokk santul Wade santul neneen Touba Mbàkke la sant Serigne Touba mooy borom donc loolu na leer ci waa PDS président Abdoulaye Wade nag dégg nañ waxam ñu ngi koy xaar bu ñëwee Touba dina xam ne yoon yoonam wii dina uteeg yeneen yoonam yi loolu mooy li leer parce que ñii la fi amoon. donc élection yi dina am ci jàmm ak dal te jàpp naa ne képp ku yaakaar Serigne Touba war ngaa xam ne élection yi dina am jàmm dal parce que Serigne Touba Serigne Mountakha dafa wàcce ay kaamil ñaan te Serigne Mountakha lépp lu ñaan suñu borom defal ko ko kon nag jàpp naa ne ku taxaw sax ne yow élection yi du am ci jàmm Sénégal gëmoo Serigne Touba parce que Serigne Touba dafa wax ne élection yi dafa ñaan yàlla suñu borom defal ko élection yu am jàmm te dal kon ku ëlbatiku wax loo xam ne contraire loolu la ñu dañuy xoolaat sa murid ndax dëgg la wala déet